asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen wax ne tey ñu ngi fii dëbbuun seet si woon ku ñuy wax Serigne Assane Thiam Xalilu mhm. salaam wa rahmatullah soxna Roqe ñu ngi lay baax te di la ziare man Serigne Assane Thiam lañ may wax. ñun nañ mi ci Serigne Assane Thiam ambassadeur Cheikhul Khadim maa ngi dëkk Touba Yëmbal. studio Dame Mansour di dom ci Cheikh Basir mom mu don doomi Serigne Ibrahim Thiam ñu koy Rahman tur nak ñu duppee ñuko ñu diko ko ngir suñu borom taasu ci barkeem mbokk nak man ma ngi sano fu wax Fuuta don ap way liñ indi ci réew mi moy ko ñu wax mahamudun Basir dara jogé won dëkk bu ñuy wax Foto top ko ngir xam-xam ba ñew ci dëkk bu ñuy wax Bangeer sama wajur góor fofu la jam jamono ñu xam biñ ñona ca Casamance man mën naa kon fi ci sowu jant bi xam-xam moon fi indi fi la ñëkke dal alquran nak fi ci yëmbal koy wax arabu Oustaz Mbaye yalla nako ko yërem yërëm bi ñu fa jogé di war nañ ci daaru ñu jaar tawfiq wal ilham si Ibrahima Diallo ak sëñ Bey jóge fi nak tak suñu dal it dox ci biir rew mi dox yu yu bari yu ko it ngir di sakku xam-xam ganaw biñu ñu jàngee alxuraan jàng xam-xam di gëstu loolu ñu wax ilmul asrar muy xam-xamul asrar waaw kay sëñ nga sa euh, ba Touba. Mhm. Dakar. Mhm. route de Boune. sëñ mhm. Assane ma bëggoon a xam tey naka nga def ba ya ba am kéemtaan bii nga am tey. ba tax ku waaw kéemtaan bi ma am bokk na ci eh, li ma def mooy li ci jiitu mooy li ci njëkk mooy jagleelu suñu borom la ñaare bi ci topp it moo doon doona loo xam ne dañ koo doon ci wajur yi ak ci maam yi ndax amuma maam joo xam ni am na jenn métier du alxuraan ak xam-xam ñetteel bi soppit ñu sol suñu dàll rek gëstu ko ndax wolof yi dañuy wax naan lépp loo doonu ndongam doo doon ab sëriñam waaw ah, kay. tey jii bi la yàlla mayee xam-xam macha allah naka nga la ko nit ñi gisee par rapport sëñ Assane bu njëkk ba ak tey sëñ Assane bii. waaw sëñ Assane moom amul ak soppeeku nii ñu ma xamee rek naka jekk ci noonu meloo boobu laa laa mel muy bi may nekk gone dama itti woon xam sama bopp gannaaw bi ñu ma jàngalee ba noppi ñu yar ma jàngal ma àddina. ndax dana ko faral di wax ñu bari ne len nit ab serigne bu jangé xam-xam bu noppi day jang aduna ñaar yi su leen boolewul aduna mën dem ba xey xam diiné kon melo wi rek naka jek mom la yor moy doon ko xamni ni bëgg doon ab julit haqqan waye bëgg doon ko xamni ni doon ab mbër saadix ndax fofé la ma sun borom bolé ma bok ci njabootu serigne touba waye nak téwul mbolém kër diiné yépp fenn fu ci nek am nañ fu kóllëre goo xamne ñong koy jokk ko wax ndax man ki jur sama bay ñu Ibrahima Khalilur Rahman mom muqaddam Sidi Alaaji Mari la bokkon ñebulen ko ca Casamance mu yoron fa salatul fatiha jora yi nga xamne mu leen di waar ba dugg ci l'islam mu jox leen salatul fatiha ñu diko liggey man mi maa ngi ciy barkeelu ba sun jonne yàgg duma xey genn bis ba tëdd ci lal te duma ci liggey duma liggey salatul fatiha kon ni la def mooy sama doxin nga xam ne soppi ma ko benn yoon la ma wajur yi dénkoon daal ba tey ci laa nekk rek mooy gëstu xam-xam sax ci jub ak bëgg lu baax ak wattandiku lépp lu bon. waaw sëñ Assane tey jii ma gis ne yow yaa ngi def listixaar. Mhm. listixaar moo ko waral ak lu tax sëriñ si di ko def. waa listixaar danañ ko faral def listixaar nag li ko waral mooy nit koo xam ne daa bëgg xam dara ci boppam lu ko lënt moo xam daa bëgg xam dara ci afaniram wala mu bëgg a xam dara ci mbiru place wala voyage wala relation wala bépp mbir boo xam ne mu ci dugg te am na ci lu ko lënt mu bëgg ci lu mu ci xam xam lan moo nekk ci kanamam loolu nag du ñëpp la ko yàlla mën a xamal loolee nag dañ koy faral di def ba tey wuute na ak seet ndax seet ak listixaar dañoo xaw a niroo waaye bokkoon. ban seet waaw seet moom dafa tënku te xaar moom daa man a yaatal. listixaar mën a génne mëna mën koo génne. waaw tey jii am na lo xamante ni mu ngi lëmbe réew mi. sonal na xale jigéen mhm. ñi. sonal na xale góor yi. da ngay gis da ngay dugg sax ci dara mu të bu mhm. dëgër. ñu ne rab moo koy def moo lay fakkatal. Mhm. dem na ba ci xale bu góor. waxambaane day dem ba toll ci am soxna. mais day am problème am soxna. day nekk nag lo xam ne da koy sabablu. mais yàlla du ko dogal des fois da ngay dem ñu ne la da nga am rab. da nga am cioro rap da am far rap waaw tay jii naka ngay xamé nit ko am cioro rap wala far rap ak ban gàllankoor lay gën a def ci doomu adama waaw kay mbiru rap moom fi jamono ji ñu tollu mëna ma ni ne ñu ko amul ci nit ñi ñu néew am na ñoo xam dañ ko am ba nopi mu leen sonal am ñoo xam dañ ko am ba nopi sonalul leen moy manifesté wul ci ñoom ñepp ci nit ñi nak day manifesté wul ci ñoom tax li ko waral moy légui nit ñi aaratuñ seen bop ba nopi sàmmatuñu seen i cër loolu ba tax na rawxaan yi wàcc ci fii suuf si ñu lenn ci jinne shayatin yi di gàllankoor nit ñi. bokk nag ci manifeste yi ñuy def mooy koo xam ne dana nekk ci kër dana bëgg borom kër sax waaye du kenn du xam kenn du ko seet wala ku ñëw dem loolu yëpp dana bokk ci manifeste yi muy def. am na ñu gën a sonal nag moo ñu xam da leen daaneel wala léegi nga jékki-jékki naqara ci sa biir xol xam nga ni dañ laa def dara fekk kenn defuloo dara. kon ñaare dana noonu la demee bay dem ci yàqal nit ki it ci lu mu dugg rek mu ci gis ay gàllankoor loole lépp nag dana def ay jeexantal ci nit ki muy woon a rawxaan mu ci moom loolu nag mm, bu fekkee da ngay jàll ci noonu koy saafara ñu jàll bu dee loolu rek nga doon laaj yem ci question bi ñu taxawlu foofu. waaw tey jii boo nee feebar bi am na. Mhm. da ngay loo xamante ne nii mën nañu wax ne lii moo koy saafaraal. Mhm. tey jii colo rab. Mhm. wala fag rab. lañ ko mën a saafaraalee. ba muy waxambaane bi dootu ko sonal <laughs> wala dina ko sori wala ko jigéen bi <laughs> waaw kay lu mel ne jëmmi wàllu rab képp koo xam ne dogal na nga am ko gannaaw boo saafoon diggante ak ñun ñëw seet ko ba xam ne lii lu wér la ku ne xam li lu naqaree faj la donte ku nekk ko faj buñ ko saytoo ba xam lu am la loolu nag sunu xam-xamu bopp la fi jaar ba mën koo nit wala man koo tàggatale nit ki mu ko jariñ du ko lor ñii danga leen di ñaanal rek mu dañ ñii danga leen di ay sarax mu dañ ñii nag moom faw nga sonn ci lool ndax bu fekkee ni ndax rab man ñu rawaxaan dana am foo xam ne ni foo xam ne bu fa ba àgg ci nit ngir taqalikook nit ki dana jafe ngir fexe ba doot ko gàllankoor it lu jafe lay doon waaye loolu lépp xam-xam moo ko man waaw xam nag doon na loo xam ni mbiru suñu la ko yàlla yombala rek day yomb ci yow léegi da ya, gis ko dana ci nek di léegi-léegi ak man dem na fu nek na nga bay gis ma dara fek bobu da nga gisul ki nga wara a gisat rek waaye amna ci jëm yo xamne luñu tabbi sun borom daf ci barké solution jiddu ci legui problème rap bobu non da fay dem bo lay dugg ci bir néegu sey da ngay gis ñaar ñuy sey ba mu yag ñu commencé am problème da ngay gis sax yo xamne ñu ngi sey de waaye dañu naan sen rawani mo àndul te ñu ngi sey deug la lolu nan la mëna démé lolu likoy waral bokku na ci nit ñi legui dañuy dugg ci sey duñ ko sét moy xol tabian ah, ku gor ki ak ku jigen ki xool seeni biddiw xol ba xam ki ma iyu la wala turabi wala wala rih wala mu doon naar yi xet xeet tabian ah yi mom ki ndox lay don ki don sawara xam nga ndox sawara ànd nañu saabu lañ boo day fay mom way bu yoron fukki place tak ko xamanteni mom mu don ndox tak ko xamni sawara la bu ando da nga gis mbiri liggéey bi di yaq di yaq di yaq naan ñom ñaan yi ba gis ñom ñaar dañuy dëkk nekk ci tawar ak seen yaram du neex waaye am na ci koo xamante ne bu fekkee ni ki xam ne moom tabixam suuf la mu ànd ko xam ne ndox moom saa bu dem ci suuf loo ci jëri daal sax mooy waaj ba amoon benn place mën naa dem ba la mbiri di demee su ko fi ñaar ñi war a ñoo mën ànd rek mm-hmm. li des mooy ñaanal leen ak ñaan ñoom ñaar ñu mucc incha allah sëy boobu yàlla mën a caa wasal barke rawaxaan dana tii nit sax ba tee ko am doom dana tii nit ki ba lépp lu bëgg di ko wuti ni du jàppandi léegi ci problème am doom boobu mm-hmm. couple yi dafa bëri problème. Mhm. ñoo xamante ñu ngi sëy du ñu am doom. Mhm. wala du ñu am benn bànneex. Mhm. ma gis na yow nee nga ne problème couple. am nga ci solution. tey naka nga amee solution ban solution nga am ci problème couple. waaw problème couple solution yi ci am bëri na ndax léeg-léeg gis ñoo xam ni danañ nekk ci buum sëy di sëy. Mm. waaye mënuñu dëkk ci at moo ay at yoo xam ne ci difficulté la ñuy dëkk. waji lu wuti dana ko jaxé dëkk ci nakar xol nan daj fa non lañ fay nekké rek yi taw xane dana ko def tane ma tiili ci walu njabot waye loolu lu mu ci mëna doon am nañ ci ay solution yu dul jeex ndax ki am jafé jafé doom loolu mom sama wajur bu baax ba Cheikh Amadou Basir yalla na ko yàlla yërëm sun borom da ko cee mayoon ak jagleel lool ta am na lum ñu ci dink képp ko xamni yalla dogal ñu déggante waxtaan ba jubo tunk ci kaddu nga top ran traitement yi muy rendez-vous yi inshallah yalla dana ci defal ndam. tay di ñu gis ne am na xalé goor yu bari ñoo mhm. xamanteni ni ñu ngi ñii ñu ngi dem ci gal bi mhm. ñu ngi dem ci yoon bu légal bi. Mhm. euh lolu tay di lan nga mëna jappalé xalé yi nga xamanteni ni ñu ngi bëgg dem bitim réew ci wàllum këyit. waaw xam nga fi ne dëkk bi dafa neexul xalé yi dañu itti woon ñëpp dañu wara gënte génn te nekkul ñëpp war a ndax gën daam ñuko yalla yàlla ñi seen wërsëg ci biir réew mi lañ ñi seen wërsëg nekk ci biir ñi nekk ci seen wërsëg nekk ci biir réew mi nañ gor gor ñaan lu dafa ko sarax bañ ko gënaawal di sangu di saraxé di suul tay sikkar koo ko def loy tabbi suñu borom mën na caa def tawféex ñi nga xam nak ñu ngi bëgg a génn it gannaaw boo déposé ba noppi walu wàllu kayit moo xam da nga nekk ci réew mi bëgg gën walu da nga nekk ci réew mu dem ba ba noppi nag bëgg ay kayit mu jaxé la loolu am na lu ñuy jëflante loo xam ne suñu borom danañ ci woon ak bunt incha allahu taala. est-ce am na ñoo xam ne yaa ngi jëflante ak ñoom ci wàllu jeex. loolu nag boo ko dee day nuru ndamu mm-hmm. waaye du doon ndamu ndax fa ama bi nihmati rabbika fa xadis yàlla bu la defalee xëy ngir ko waxtaanee bokk ak sant yàlla mm-hmm. waaw maanaam ko jàppee ni xëccoo place euh, tukki bi

ndax fan yi am na jëmm jox dama koy seetal ne ko fekk dafa am ndekki daa am ku muy xëccul place bi nag di ci jéem ci ngir bëgg lor kooku ñu jox ko place bi fekk ni kooku doon koo xamante ni mooy bàyyil boppam mbir ya dellu ci moom. nga xam ne biñ ci man bi ma dem ba hôpital saytu ko bi ma ko ñaanlee ba ñibbi si man suñu dogal na ci ma yëg ci sama bopp ak jagari goo xam naa ne lam laal moo ko waral man dañ ko mujj tuural deret mooy rayal ko am gàtt génneel ko ab sarax loolu doog a nga xamanteni ni mbiru xëccoo daa bëri ay danger ndax ya ngi xëccoo di xëcc ka nga xëccool xamoo moom ci lum tok la ci gëna moy nga def ñaan yalla rek tay saraxé bo ci amé yoon bu réew incha yoon bu leer insha allah bo ci tabé rek sun borom mën na caa def tawfiq insha allah. ko da yalla mu ngi lay sutural ci wàllum tu liggéey. waaw yoyu dama jommale sama bop nit ñew ci man ndax it comme ni nga waxé légui rek lutax nit ñi di la dikkal man li di jiitu may tambale ñaan sax auto sax bu ma ci duggé nit bu xolé day am ci man yaakaar nañ ma sëñ bi ma tambali, nga ñaanal te tambali. tambali bu ma li ndax bima koy dooro tambali ci sama ndaw la tambali di fajj ñuy wër ñu tambali di ñew dugg sama bay ne ma dafa téel ba dafa téel boobu nak mo taxawon ma dellu ci ginaaw bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax wa way lool mom amul barab bu ma naan jalañ ba dem te nit duma xol am delu dalu xel ci man ne ma sëñ dama ñaanal yalla te lool yi day tegtali ni yàlla du yebal nit ñi fu dara nekkul fu yebal nit ñi rek daraa nga fa loolu nag ñoo ngi ciy sant suñu borom bu baax baax a baax a baax a képp koo xam ne loolu gisoo nañ ci kàddu ba ba tënk ko euh, waaye nag li may faral di wax ci yenn interview yi rek laay wax mooy man moom yoruma luy maye ndax li ma yor kenn mayu ko dañ ma koo jaay mooy fa ma ko doon sàkkoo ba ci sama wajur lenn lu ñu ma ci jox gratuit ni amul léeg-léeg lu ci ne da takk naa sama say xaw caa waaw nah, kon nag ku bëgg it bis li ma sama bàyyi xam da ngay dem ñak ñuqi bo ñëw bu ñu la ko joxe boko ko liggéey sa aaju faju ok tay jii ci wàllum liggéey boobu lay dess ba tay nga nekk ci bërepp di liggéey mais dañuy gis né nono yi day bëri wax ji day bari tay ji wax ji nga xam ne tamit ne bëri na ci place yi waaw nono yi ya? mhm. naka la nga mëna ya, jappalé jàppalee bi ba yalla safaral ko ci fay wax ji coow gitu. yooyu waaw mbirum non mom solution yi ma ci am bari na danaa ci defal walu karanga yo xamne ngir ko bëgg bëgg mucc ci non ndax soxna si amna ci nit ñu bari ño xam bëtt mo leen galankor ñi lamé ñi leen galankor ñi ay pexé leen galankor ñi sax ki ñaanum nit ki mo leen galankor ki ñaan gu da dem ba yóbbu ci nit ki nit sax bu dem ci di neeku di dal ba galankor la bu ci bëggee mu day am kaaraange te nak nit ñi tuñ yo na ci ay ndom yu cher nak yo ku am man nga dalal sam xel yor naa ci ay xeeti càngaay foo nekk ci àddina bu fekkee ne yàlla dogal na yóbbante mën na faa accès rek lu mel ni xeeti GP wala nga ne ci biir réew mi loolu mën nañoo fexe ba nga jot ci bu fekkee mënta nekk it am nañ ay dogu xasbunallahu wa ni'mal wakiil ñu bari nag danañ ko faral di joxe noonu xasbunallah waaye am na aaya bu ñu àndal bu ñu koy fan xali boobu bi nixmatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'an a tabahu ridwanallahi wala zu fadlan asim ab lim bu ci tëgg su ko fe buñ ko jàngee bu noppi lii ngay def sox loxo yéene ko ki nga xamantene mo nga bëgg ñaanal suñu borom ko inshallah allah nek mu suñu borom dana ko samal boppam dana ko fottu ba lepp lu du wu suñu borom du ko lor inshallah allah ba tay euh, ci wàllum fay wax bi mhm. sank da nga wax ben euh, baatu alquran bu am solo moy mhm. asbuna laa wa ni'mal wakil mhm. des fois da ngay dégg ñu ne la dee xey diko def 450 fois bala nga teud nga def ko ban la am

lolu da bok ci tur yalla yi alquran la léegi nit ki nan lay mën a leb ba ba di ko mën di ko fëgg di ko rëkk mooy ko def mu mën jural dara day aajo sa jëm set nga sol yi du set tok ci barab set ba andak teewul ba noppi di xeeñ lu neex ndax tur yalla sa bok def mala malaayika di ñi wacc ñew ci yow su ko fe bu ñu xet lu neex lolu dana dana tax ñu mën barab ba ñoy tax barab ba raw barab ba ñu mëna dëkk ci barab ba ñu lo fa ñaan sun borom mën ko nga ñu yéegee ko waaw ah, te loolu yi mën naa jafe nit ki léegi la ci gën nag mooy mën na am kaaraange goo xam ne day dem ci da koy takk mu takkoo ak moom bu ko xasee ba ëw mën naa dugg ak moom fu nekk lenn rek lay bañ mun nax man chaque jour ñi may jëflante dama koy wax mooy képp koo xam ne jox naa la sangaay doo ko jëfandikoo fa am sobe xanaa mu doon ab sunguf moom garaawul bu sunguf yoo xam ne moom àndut ak dara alxuraan mën nga koo jëfandikoo ci ay toilette wala nangam sànga wala ci barab waaye nag bu fekkee du loolu alxuraan la moom dees ko jëfandikoo ci ci wanag donte am nañu koy def waaye képp koy def na la wóor ni balaa ngaa faatu dana la jural ay gàllankoor waaw day jar bu fekkee ne sax dem nga ba nga xam ne xeet ca am na ci yoo xam dañ koy naan am na yoo xam dañ koy jox nga di ko nga di ko nga di ko tari yii nga teg sa loxo miso jàng ko yii naka noonu maa ngi ci baaxaale képp koo xam ne am nga xale boo xam ne bëgg nga suñu borom sàmmal ko boppam bu yeewootee na nga jël sa loxo teg ko ci loxo ci bopp bi jàng yaa bar juróom-ñaari yoon ne ba keroog muy màgg yàlla koy sàmmal boppam mm-hmm. ay ca bisimilah macha allah ba tey ci wàllum fay mm-hmm. yoo xam ne day bëri jubale mm-hmm. ku ñaar yooyu nan la mën a àndi ci couple ndax yàlla ndax tey jii yow yaa ngi ciy def loo xamante ni yàlla mu ngi ci ciy am ndam ci couple yi ci wàllu nopp beeg wàllu jubale. waaw lu jëm ci nopp jubale ak fay wax ñett yëpp jafe na waaye yàlla yombalal nañu ko wàllu jubale moom doon na loo xam ne mën naa ne jafe na jafewul wàllu noob it fina don na mom mom mo gëna jafé nop mo gëna jafé ndax fi ni nop ni mu dox man nga def juróom-ñaari nop yi du dox wa dama lu def fekk ni waji xamul code biñ koy defé wa waaye am na ci nop yo xam soko xasse def nit mo tax goor ga mako ko dama damaa wax ma seigne assane man ko waaw mënuma li nang ci ragal yalla so xasse ba jox nit mom jeex na moom da nga yëg ni mom ki yap gënal sa bop jàkkanal boppam ah moo tax it ñaare ku faral di ci man di wax naa la wax ne la ah mbaa sëy nga ci nam yu demee noonu bu dee fay waxit mooy lépp loo xam def nga ko te bëgg kenn bañ koo tuddati ak a ndax jarabu naa ko ay yooni yooni yoon ana ci wax ne boobu maa ngi ci daara ji sax am koo xam ne daa tàbbi woon ci yu mel noonu li bari lool ndeysaan boobu daara ji nag am lu mel ni barax yu fa nekkoon barab buy tooy la man ko lii jël ko nga dem suul ko incha Ah, loolu 2014 la woon ba fi mu ne nii loolu diggaat ko fenn ah, kon loolu yëpp moom. su ma na ko fi waxatu ko. est-ce que tey ngir gën a jubóog sa borom kër loolu dara nekku ci. gis nga ndax lislaam moom lépp lu baax rek lepp lu bax yentou sallallahu alaihi wasallam jangale nako ñaan lu sa jëkër nga gën la bëgg wala sa jëfar gën la bëgg lool mom dara nekku ci la bon nak moy nopp ko xamantene dang koy nobal nit ki nopp ñaan di caaxaan mom lool mom ma ngi lancé défi bépp sëriñ bu koy def na la wóor ni sa bu ci toñe sun borom am nga ci response masuliya bu rëy boo xam ne boo dina ko laaj. est-ce ku nekk ci bu musse war nga nopp ki nga nekkal. lool war na mëna nekk ci wette mooy mu wir la nii kii daa bëgg dakk takk soxna ndax mag ñi bu njëkk sax waa ji daa ko def waaye waajur yi ñoo ko daan def diw kat nañ ko boole diw ngir bis buñ ko gaaralee ne ko dañ laa bëgg jox doom sa diw rek da ko gàntal waaw waaye fi ne nag léegi moom loolu xaw naa tum ràgg waaye lu ma ci xew moom balaa ma ci dugg moom danaa la ci li may def ci sëy laa koy def mooy balaa ñu ko fas laaj ba xam ndaw si tollu lu wér doog la ci a jox lu néew lay doon te day jeex bu ko fee sa diggante sa borom na moo ko jar xam naa ne wàllum nombre war na ci bëri client jamono bii ñu toll. Mhm. ak fi réew mi toll nii. waaw ci diggante waay dencante yi. Mhm. war nga mën a bëri client ci côté nombre bi. waaw loolu dama ciy bëri client ndax ñi nga xam ne defal nga leen ba gis ko ñoom ñooy dem indi ñeneen waaye nag defaloo ma ko mooy yombul ndax li ma ko waxee léegi rek ci ay sart yu leer rek ci laa koy defee moom ndax xam ne àdduna du kër te yàgg yàgg day jeex fexe it te nit ñi mënuñu laa jox lu la satisfaire dara luñ la jox it day jeex mën la ko jox mu jub léegi ay soxla ñëw nga daal ko ñu def mu jeex. kon nag loolu bu la taxee ngay jëflante rek loo xamante ni yow bis boo dajeeg sa borom mu de la fa tardé loolu dara jaru ko. Ah, okay. est-ce que batay ci walu noob di ngay gis goor ño xamantene ne ñi ngi ñew pour noob seen soxna wala seen coro ah lool kay du jeex <laughs> du jeex kay hmm. waaw lool kay du jeex xam nga fi ne dëkk bi nag dafa doy war waaw ndax fi doon lélé nga yor soxna ben way la jël ko rek wala sax nga and ak mom ba ci yag ngeen amone moyen moyen moyen financier yi tambalé di manké fekk ndaw ci tàmm na gis kenen comme ko jox lu ëpp loola fay waji bu gaawul ñaan lu ci ah li muy def mooy day daal mujj ñàkk soxna bu leen xasee yàlla ba boole yàlla ni mu daganee lay sëy noonu la daganee fase waaye ni mu daganee fase noonu la ko bañee waaw moo tax gaa yi moom duñ ci tàyyi moom waaw buñ sañoon saa buñ gisee ku leen nopp dañuy fexe nga def loo xam te ni waxtu bu jot naweel gi day yokk mooy ci côté góor ñi di côté jigéen ñi nag waaw daa <laughs> xew daal daa xew waaw <laughs> ndax jamono toll na foo xamante ni léegi feebar yi bari na mhm. wàllante bi bari na xamoo ku ak ku feebarul mhm. ma gis ne yow tey jii yaa ngi faj hémorroïde mhm. bi nag naka nga koy fajee waaw hémorroïde ñetti rendez-vous lay am ndax da am ñaar mooy boo xam day génn am boo xam bu ci aw doxinam ñoo bokk rendez-vous rendez-vous lay am ni am nga ko boo nu contacter war nga jot kenn ci suñuy ndaw incha allahu taala da nga ci gis résultat ni koy fajee nag bokk na ci am na ci yoo xam ne ay garab la yoo xam ne da koy naan am na ci ay reen yoo xam ne it koy akay ay xob yoo xam te ni koy baxal di ko suuroo am na ci ay produits yoo xam ne koy diw bu fekkee daa génn incha allah mu mën a dellu léegi fajum hémorroïde boobu. Ah, ndax ñu lay fay euh, am euh, effet secondaire li may def dama ko man du am effet secondaire. Mm. dara du leen ci fekk. Mm-hmm. moom kay li muy def mooy bu fekkee ne daara xaale jeneen tawat sax da nga tàqali ko ak moom. Mm-hmm. incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam. waaw kay ñu dem ci wàllum tële am na couple yu bëri yoo xam ne tey jii. waaw ñu ngi brisé wu ndax tële. Mm-hmm. góor ñi tële nañu. waaw te kenn xamul ko waral. li ko waral kay ñëpp xam nañ ko. li lekk baaxul. gone yi dañoo mën a foog ñetteel bi ci topp it ngay gone yi kenn takk sa tuwee dañ koy xam kiris koros lañ koy <laughs> xam ne moom ma gisee ko def moom ñaaree dama a. Ah, kiris koros mën na tax takk tuwee nii ci digg nii. Ah. day day jur loola. Ah. waaw ñaareel bi ci topp it. waaw na xam tey ñetteel bi ci topp it. mooy gone yi. Mm-hmm. fi ne nii xam nga réseaux sociaux bi mu xewee yàggul bi mu amagul nii dañu daan gis góor balaa tële dana àgg. ndax mag am téeméer at ak fukk ak benn xam naa ci ko xam ne cent onze ans muy ngénte cent waaw léegi nag luy bari gi bari bokk na ci xeet yi ñu lekk jimbo yeeg nangam ba ci suñu légumes yi ñuy lekk produit yi ñu ci def ngir muy gaaw ñor dana juróom nit ki muy néew kàttan waaw waaye nag loolu it man am naa ci am naa ci solution mooy am naa xeeti sunguf yoo xam ni ndax léeg-léeg démb rek maa ngi ko wax benn xarit ne ko nit ñi yii ni jëfandikoo produit yi xew nii war nañ ci def attention bu baax a baax ndax kenn du xam luñ koy composé moo xam yu tubaab yi la moo xam yii nga xam ne gars yi dañoo bëgg nit ñi dañoo tële léegi rek ku ne gaaw defar <laughs> yoo xam ne moom waa ji boo ko laajoon dosage ban dosage nga def sax day am problème ah. du ko xam. yow est-ce que produit yi ngay defar yow lu jëm ci wàllu tële xaj bi. waaw <laughs> weesu naa foofu. li ma ko defalee lépp ci garab yi nga xam ne mooy gàncax yi am ci suñu mi laa koy composé. moo doon yoo xam ne lépp naturel la du doon sunguf boo xam ne day am grain ndax léeg-léeg nit ñu jox la am grain nga nekk ko di fajo ba nopp mu jëral la jàngal ndax grain yooyu ci estomac bi la jëm te boobaa dana yàqat estomac bi. léegi nag euh, tey jii. Mhm. estomac boobu nga laal. waaw bëri na ñu bëri moo xam ne mu ngi leen di sonal tamit. moom ñaari bitéel nga ciy jël. Mhm. mu tàqali koog moom yalla mi amul kumpa man suma sana nan kafe gu fanan wala lu forax wala ma lek kani duma yendo jam jàmm fitone amul xet lek yi dara lu may lek mo won ma def dara dama ca fajal sama bop nak bu wir doo jël engagement ni man nako koo faj waaw kay. ndoxum city bi nan nga kay fajee ak nan nga xamé ni ki dafa am ndoxum city ndoxum siti tam. traitement bi nga koy jox. boo ñëwee damay waxtaan ak moom. laaj ko yan effet ngay gis sa bopp man ma sama xel bi day faral di teey sama yaram day xasan may faral suma sango ba genn sax sama damay konne sama yaram di hmm ba ci ndoxum sidi sax mën dem ba yubbi nit ki mu néew katal mën dem ba yubbi nit ki sax mu néew katal tawat la yóbbaare mën naa dem ba tey nit ki du am doom ndoxum sidi waye lolé lepp mom xam-xam mom bayiwul dara te mag ñi nga xam ñom lañu yalla bolé yàlla boole liggéey nañ fi lépp bàyyi fi xana gëstu nit ci moko dul ag waye nak man fi ne bima ma ba suñ jonate ma xaw lu jang ak gëstu rek loolu la ma sa xam naka jek léegi yow ci faj bi ngay def da ci boole euh, garabu tubaab wala yow garabu wolof rek ngay def benn garabu tubaab bu ma ci jëfandikoo du am. Mm-hmm. amul benn garabu tubaab boo xam ne danaa koy def di ko jëfandikoo ci sama faj amul. mais dosage yi kenn du ko wax loolu ma ma maa ko xam. yaa xam nangam laay jël ci nangam boole ko ci nangam. mën a mën maa jox dosage bi ma soxla. lolou yëpp sa gëstu mo lolou ko. sa yëpp sama gëstu moom moom ko may. fii ne jàng naa étude papa yi taxuma cee sori lool te li yàq sama jàng ci wàllu tubaab bi ma jógee daara ja bokku na ci gëstu xam-xam wa mos nga fajj ko xamanteni ni amna na ndoxu siti ba ndoxu city bobu nonu dem euh, defee ko new katan ba ku jigen ki mënul am do wala ku goor ki mënul am do léegi fajj bobu bokay def fajj yëpp ngey bolé wala. dir du mbool fepp kenn ku ci nek rek fi sa sa taw tollu rek fofu lay tambalé ak yow ndax dimension tawat yi du tollo kenn ku nek bo ñëw suma la xolé ba saytu xamni yow fi la wara tambalé yow fofu lay tambalé ak yow bu fekkee da nga weesu fofu damaay dem fa nga yëm ma tambalé ak yow du fofu da dama ñuy ma tambalé à zéro lu mé non mus nga am patient bo xamanteni ndox ci dama ko jàpp bu amul doom. lool kay du jeex. té bi ko fajee ba paré gis na ci njëriñ. waaw am na ñoo xamante borom wuyu nañu ci lañ ko doon wo mu defal leen ci ak njabot am na ñoo xam ne nag bi ñew fekk na mu ag leen fo xam mom dama leen li moom mënatuma ci dara yow mënatuma ci dara waaw. ginnaaw bu ñu jógee ci walu faju feebar yi faju cosaan. Mhm. tay ji am na ñu bari ñoo xamne dañuy bëgg bay rek. Mhm. ubbeeku. mom mhm. da bari ay façon te wuté ki da ne man dama tok ci place bëgg nit ñi dima dikkel dikkal di ñëw moom téer la yor wala muy commerce ki daana man dama bëgg bayra bo xamne man sama jëm lay nekk ah, lool yëpp ki daane man nak li ma jaay la bëgg yalla def ci bayre yoy yëpp kenn ku ci nekk amna ay xeeti façon yu dul jeex yii danañ ko tak yi safara yoy sango yi doy diwoo la yi yoy def ci barab bi nga nekk mom lay doon waaw amna ci yu yomb nak way amna ci yo xamne yu jafé la doon ndax bu dee place bu maga mag la amna ci yo xamne bop bopp til la ngay wut te loolu daa jafe waaw kay bayra ak ubbeeku ban différence la am. am na différence biir waaye nag nit ki ubbiku moo gën a moo gën a yéeme bayre ndax nit bu ubbiku ba ak ci dëgg-dëgg ubbiku bu doon jaay ubbiku sax mu jar ma sama dem ci benn semaine rek di fay courant. benn waa joo xam ne socc lay jaay waaye day jékki-jékki ne dee leen socc rek ñëpp di reetaan nekk kaay jaay ma ma ne ki ma deneel kii li mu yor di jaaxaan de su ne ku bëggut jënd sax da ngay jënd waaw mm-hmm. ah, te loolu ibbi moo koy faral def bu àggee ci nit ki ba tijji ko lu mu nekk loola day baax. waaye nag tey jii boo ne bayee. Mhm. ne ubbee ko xam nga ñaari presque benn la mais am na tuuti différence. wuute na nañ lool. wuute nit mën naa ubbi ko ba àgg ci ubbi ko du am bay rek. léegi tey jii bu amee bay rek. waaw yàlla ubbi ko wërsëg bu yaatu. Mhm. waaye nag boo ne bay da nga naan protection ku am bay am ubbeeku. waaw mbirum kaaraange moom xam nga xam nga jot jot naa cee jaar wax naa ci léegi mbirum kaaraange. may nee naa la am naa ci ay domb yoo xam ne pour góor la am naa ci ay téere yoo pour jigéen la am naa ci ay xeeti sangaay cangaay dana jóge fii dem ci réew mi fu bare bare bare ci réew mi am naa ci it ay yoo xam ni donc bu dee gallaaju kër rawatina ñi nga xam ne tabaski nañ ba noppi nag seen xari tabaski béjjin bi féetee kaw moom am na yu ñu ci def mu jëm ci wàllu kaaraange ba ci bijj bi ci suuf it am def ci wàllu kaaraange ko am daal te bëgg kaaraange kër wala nga bëgg place loolu yëpp allah boo ba indi ko defal allah kër gu mu nekk moom jàmm rek fay am bu soobee yàlla waaw hmm. kay sëñ ñu bëggoon tamit euh, balaa ñoo émission bi rek. Hmm. nga waxal ñu ci xalwatu. waaw xalwatu mbir la la. léeg-léeg sax nit ne ma sëñ fan yi dama lay woo du dama lay gis xool ci bi du ma la gis ma ko damaa xawoon a jàpp loolu nag gone du ko def lu moom gone du ko def lu benn def gi jafe na def nga ci wàllu financière chair na it sarax yi muy laaj doon lu ñu ndaw ndax ñetti fan am na juróom-ñaari fan am na ba ci 41 jours sax am na muy aju ci xaaju nit ki waaye aju yu lay doon moom ndax nit ki day tëju kenn du ko gis ba noppi da ngay ya, and ak koor ñettel bi ci topi nit do lek lu am ruh ci bir xalwat gi ba keroog ngay génn xam nga lool benn bu ci nekk yombul. waaye xalwatu boo ne xalwatu dugg xalwa mu ngi ci. waaw te yaakaar naa ne loolu bëgg tekki. waaw pour ñi nga xamanteni ne nii xamuñ lan mooy baatu xalwatu. ndax li ci ëpp xulwa rek ngay dégg. dafa dugg xalwa dafa dugg xalwa. waaw waaw. waaw xalwatu man mas na am kilifa guma ma dama bëgg nga duggal ma xalwa daal ma jox aw tour mo doon ab talsam. ma ne ko du ma liggéey lu ma xamul mu ma aajo yi mag yoonu gën a nekk ci ma bàyyi waaye ñett ñu ko duggoon ñëpp ñaari ñu faat nañ kenn ki daa tëdd tawat ba suñ joone yàlla tey te lam ñu waxoon ne laa leen jox lekk naa fi téeméeram lu toll wan moo tax mbir yi ah, al ilmu al ilmu xablal amal ni jiital xam ba noppi doo doo ko jëf waaye loolu li ñu ko may it muy fi ñu gindikoo muy keppaaru xam-xam ci leen di gindikoo ndax sunu waju maa ngi siyaare Cheikh Mouhamadul Badi moom Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Bassirou Fall alxuraan yàlla na yàlla yokk ay leeram taas ci barket ba ci mu Moustapha Niass mi boo ñëwoon sama kër am na ay photo yi kenn ku ci nekk ci kilifa réew bi am na fu mu jaar ak ci xeetu yu mel noonu waaw kon nag noonu la mbir yi demee. doon lo xamni nak yombul waaye kep ko bëgg buñ ci digënté rek insha allah taala jort na né dana mëna jappal bu féké paré nga pour lool léeg-léeg di nga dugg xalwa. Mhm. nga génn. Mhm. feebar ab yaram yu métti wala te dégg dégg na sëriñ ci diko wax bo duggé yeen xalwa yo xamna daf la ëpp di jëlé jëlee comme ni nga ko waxee sànq ne am na ñu ci duggoon xalwa. wa loolu man musuma dal. Mhm. génn feebar déedéet benn yoon la mësa dugg xalwa sama loxo chamuñ bi néwé fek am nguur so xamni da yor ay terrain yu bari ci Dakar am kum ko jaylo bon ko waji waji dem defar ay tag dag ko di jay terrain yi nak noppi pelante ko ba noppi ne ko juk ci walu seri bim ko yige nag mu wone ma ne ñaanal ma ci dama dugg re sama loxo ci am bi tambale di neewee ci fi ci tëngéej ma gennat problème bobu la ci massa am waye gannaaw lolu mos ma te bobu sax lolu lolu li mat ak nangam waaw waye gay dugg di gel ndax it bala ma dugg it dana wajal sama bop dogo dugg est-ce que ñi mhm. euh, mhm. loolu kenn waxu ko ah jët fan yoo xam ne da nekk ci yàlla loolu caaxaan waaw ah, ad'uuni astajib lakum te it adduwaa aw silaahul muminin yàlla nee na ñaan saa bu ngeen ma wooyee ci nañ ma war a wooyee mooy li jafe nag mooy am connexion sa digganteek sa borom waaye loolu nit bu xasee ba am saa bu yàlla bu ne allahuma suñu buy ko. yan nit di war a am bay dugal loo mën nañoo xëy di décréter ci ci bi nga ne man kat poste bii ma yor bëgguma naa ci duggul xalwat mën ngaa nekk ci place bu mag bëgg ni man place bi kat dama bëgg nekk fi ba nga xam fi génnee maa fi génneel sama bopp am sama moyen bopp dem waaye kenn du fa dàq loolu mën na sañ ci dugg ci wàllu xalwatu wala nga ne man kat ma ngi xëccu dara wala yu demee non lool moy waral xalwat wa itti ju rëy daal lay doon mom xalwa dina mëna a taal doomu adam bu baax baax baax ko ko def bo génnee at mom da nga xamné am nga loolal da am ku baax ku ñu wax Cheikh Ibra sama soppé be dañ ko laaj ne ko ko am ngeermal yalla ndax nee naa xam mu ne ko jigéen ji wala wanu lor ko gis xam ko ñu ko waaw Fall mu ne ko yalla nekk ci ko gis xam ko waaw ñi fer par rendez-vous lay jël incha allah da ngay woote rek incha allah ñu fixé la rendez bu soobee yàlla. maanaam képp ku am problème hémorroïde problème estomac jàngoro tële. waaw problème euh, sëy. waaw yooyu yëpp mën nañ la woo jël rendez-vous. waaw. waaw bu defee maa ngi ziare bu baax euh, Serigne Cheikh Diop xéewal moom it di sama mag waaye di sama xarit di sama soppe ku yàlla baaxal di ñaanal suñu borom. di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu dolli ko kàttan bu baax a baax te dolli ko ay xéewal ci barkeb Seexul Xaddim noonu it lay ziyaare bu baax mm, sama mag moom sama xarit kay wax Mala Gomis sama lépp ma di ko ñaanal borom mm, borom école la sagesse ñaan suñu borom barkeel liggéey bi te yëkkati ko bu baax a baax a baax barke alxuraan noonu it lay ziyaare bu baax a baax nabi Yuusufa Suma momit di lepp ci man nang koy sante di ñaanal suñu borom defal ko tawfiq di ziar bu baax baax ak di magal seku Badji momit di sama mak di sama xarit kenn ku nek ci ñoom ñi jaar ak man ci barab yo xamni yalla rek la koy sédel yalla la leen bayel waye ñoom def giñ ko def kenn ci ko di ziar suñu Xaadim Géey te Tëngéej di ñaanal borom defal leen jamm bu baax baax ak tawfiq di ñaan suñu borom suñu wajir yi nek ci sax suñu borom yërem leen Cheikh Amadou Basir waye soxna Aysatu sar ak soxna Maymuna cham ak mbolé mbokk yëpp diko tambalé ci euh serigne Moustapha cham soxna Ramatulaay cham ak seenu njaboot yépp ma ngi leen di siyaare di ñaan wa chamin famille yépp su mborom sàmm leen te diggalal mbokk bu baax a baax ci daraaje Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jërë jëf. ok seigne Assane cham hmm Xalilu euh, Rahman. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf kontaan euh, ci accord bi ñu defal nii tey. Mhm. jërëjëf si Ndiassane. waaw kay baarakallah jërëjëf tabaarakallah alhamdulilah.